muy eh, jaraaf yi ni mu mel jaraaf wala appartement Guédiawaye moo ko amaloon ak ndaw yi jaarukaay yi kon gars yi ñu bàyyi xel ñoom l'observateur wax ñu ngi ci jéegaay bisimilah dal leen jàmm waaxu ñu leen xajul ci bàttare te bu ci leen bëgg Dakar bi yéen daal ubbi l'observateur suñuy premier servir suñuy premier servir loolu yéen gars yi di groupe di média di ko seen cee fëtënité nee leen gaaw ñi ñaar fan ak juróom ci weeru ak ñaari junni ak juróom ab sëriñ mooy ku am solo mën naa am fële ci waaye amoo gàtt ba nga xam ne nag collectif ci ngeen di bàyyi ci daara yi gaaw yi ci Sénégal yëpp muy bu bu tàkku ñëw déglu étudiants yi kenn ku ñu ne ndax dañuy sa basa muy gars yi nan si observateur gars yi yéen gars yi mu ci taxawee dañuy daal di jàngal wax ngeen ko dégg la ci nekk bokk na ci discours ko maam di ko di jëwriñ bi nga xam ne moo tax jëndee ci a Ami Gaawal Ndaw ñaar ñenn ak a son PV ndaw si xam ne moo di seeti dem ak dikk ngir seen njàng mën a ñoom lu ni mel nag moom la Aliou Badara Diop nekk moom it njiit ca université bu Thiès daal di koy wax bu ñu desee ci yenn kaay bi di wal fajri Latir Diouf bu Bambey daal di fay nag ci xëtu njëkk bi yem foofu taxaw dem bu seetlu nee na day góob bi benn la kanam gën a aw kanam lu mel ni mu mel ni a info de comme ñu bësal ci ëttëb yëkkikaay yi yër ngeen yëkkikaay yi kii di Mika Ba Mika Ba nag wax ci turu Ndakaaru wàllum pédagogique waaye lu jëm ci seen wàllum nekkin ba seenu jàng am yoon mu mel ni nag jaraafu Géejawaay bi di Alioune Sarr indi na ci ay pexe nee na day jàngoro ci saafara la dégg naa leen te dinaa ci matale sama waa gars yi nañ des yéene lan la Alioune Sarr fay fësal bokk na ci nag li nga xam ne moo di question éducation yi lu ko soxal la waaye nag formation kenn waxul mu des ndax nee loolu priorité ci commune bu Géejawaay ndax nag li koy jëmale sama kanam waaye dama laa xaale ñëpp ba tax na nag Géejawaay dinaa ko soppi gën ko def l' excellence ndax nag excellence dynamisme am solo la ba tax na matale saal yi dinaa ko renforcer école matale daara yi digg doom yi dinañ xel waaye gars yi dama yem foofu ndax ay disposition jël naa ko jëm ci wàllum pédagogie ndax bind ni ko ndax nag gën a xam li nga xam ne mooy carte scolaire bi bu ko defee sunu naataango wala suñuy mbégte jëm ci wàll woowu ñu mën koo fësal ba mu leen naan ñu mu appartenir gagnant gagnant na caa jéego ci université digg doom ya nga xam ne ñoo nekk ci réew yi la yéen a kaay yi ñu daal a bu réew mi indi na ay leeral na lu toll ci ñetti million fas yéene ci ànd ak étudiants yi ci ab appareil programme bi bu ko defee képp kuy jooy imprimante wala ngay jooy lépp lu jëm ci ay machine photocopie wala ay ordinateur ñoo cee bokk yëpp ndax loxo ku ne lépp ku ne nga ca la may ñaan moo di l'union avec une seule organisation faîtière loolu laa leen ñaan ñu bokk ndey bàyyi di yëkkatandoo di tëralandoo ndax émergence géej waaye suñu soxla la suñu yitte la waaye suñu dañuy dem nag département 3 topp article ba ab boppam jaxasoo 19 heures moo tiré fekk faran boo xam ne a gudd congrès de Berlin wala sax conférence de Bismarck ba conférence de Bande sa waay daal di brûlé ba dugg ci biir restaurant avec les anses négocié wuñ ci benn yoon naa ah, violé loi ya tekki sart ya teg bële jël palaat ba ñu tibbal ko muy xeeb seen ñëpp à 100 pour cent ndax yéen ni ca contrat de performance un étudiant un ordinateur waaye bi ci restaurant Assane Seck bi un étudiant de mos de viande waa ji gëmul li ñu mel ni daal di ngaa ngi comme mu demee ba aw yaram mu tàng mu tëli kees nguur yëpp tànn la ko doy daal di génn ni mes ni menteñ ko ngi raw naa dëgg te yow comité de discipline ba gis nañu ko ban xëyee convoqué ko ca Jaraaf université ba ba nga xam ne guddi yeggee ba jaaw rek moo ko jiite ca comité de discipline ba la mu wax mooy la ma def tayu ma ko naa nu moon wet wala ma soor bu dalal xel kon gars yi bu ñu demantee ci ay examen mun nañu réviser ndànk bu ko defee ñu dalal suñu xel ndax lu am yàlla la jërë ngeen jëf